ginnaaw bi nga xamantene ki di madame Oumou Diamanka sous-préfet bu Ndiaye indi na ndigalu ki nga xamantene mom modi monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis te mu jëm rek ci wax ndongo daara yi nañu tok seen kër te baña a ki di monsieur le maire de Ross Béthio moom dafa daldi lancer appel ñi nga xamantene ño nek ci commune bi ngir ñu jàppale ñooñu di ndongo yi ci nonu nak le comité de local de lutte contre le coronavirus ci Ross Béthio moom dafa kay tak jëm rek entamer le premier plan d'action te mu jëm rek ay ak ñu yóbbu ko ndongo yi ci daara yooyu. ah euh, balaa dara rek ñu ngi sant yàlla bu baax jul ci yonent bi salaay salaam te di wax ni rek lii euh, rek lañ doon xaar ci ci ci askan bi mhm. ndax lii nekk nañ loo xamante ni Sénégal ñëpp adduna bi yëpp mhm. ñoom ñoom ñoom la dal mhm. donc lu daal àdduna bi yëpp nag ñëpp ci war a jàpp comme ni monsieur le maire wax téem ñu rafet bu baax kàddoom démb ak taxawaayam ndax lii tey bu amee tey dëkk bo gis amna jitt jitt lool lool ñeriñam moy li bu xewé ñu gis ko ci xam ko ci ku ne xam na daara talibé yalwaa moo koy dund kon donc bu fekkee ne lii xew na euh, ñu wax taalibe yi nañ toog balaa transmission bi di gën a law di gën a continuer ndax ñoom mesure yooyu ñu jël pour tere xale yi yalwaan nekkul dara lu dul bañ feebar bi gën a law ndax feebar mu ci ngelaw gi mu ngi ci jaww mu ci lépp bu fekkee ne confiné nañ xale yi ci biir daara ji nañ toog ci daara yi kon war nañ leen andil koo xamante ni moom la ñu ko xool nan la lañ ciy jàpp incha allah di rafet nañ bu baax am na solo waa ndimbali ndimbal mi tàmbali na dëgg tam ndax loo loo gis ci àdduna rek mm-hmm. am na njëlbeen waaye liñ ciy gën jàpp rek wala li ñu ciy ñaan moy mm-hmm. na am suivi mm-hmm. na continue ndax su fekke ne ñëw ngeen fi tay benn fan bi mm-hmm. ngeen def ko suba ñëw leen ginaaw suba ñëw leen day nekk lo xamanteni day day soxé kon donc dañu bëgg li fi mu commencé tay bañ dag ba nga xamanteni yalla def situation bi rétablir en normal lay loolu ñu ñaan ni men hen seeɗo wono wayno ko nanɗen caggal leer ko yimɓe nanti wonno maaya allah no men taw ci mbeɗa en jawta dum rabbi kon min ñaaguino e ballal woni ha min jinno kala to daara woni walla to jangino qur'an woni walla seere me ngoni goni fo njodo jooɗo kaym laaji qur'an ñaago kala ñaagui sollo jaɓi inshallah rabbi ma la ismi leeni allah kadi andi wona cakan mashallah e kala no qur'ana jangga duwa won cukalon yoy mo fo len bon fo jodo ina wa wasa hemɓe allah o hirsi hen rokkiri e sababu noon ɗum wax nena ben bat la ñaan hmm. li ni def ni amna solo waaye ñoom waa daara ji am na loo xamante ni gëm nañ ni war na mën nekk mooy lan ñu dajale sëriñ yëpp ñu ñaan wàcce ay kaamil musiba bi bañ ñëw Ross Béthio loolu daal moom mooy bëgg-bëggam su sañoon daal ñu dajale sëriñ daara yëpp ñu daje ñu def ay kaamil ñaan ko pour ñaanal Ross Béthio loolu daal mooy bëgg bisu samedi la ci la ñu togg togg yu am solo sax yóbbul ko ci daara yu bari lu tolloog rekk ci juróomi téeméer ak lu tegal ci ay ndongo ci Ross Béthio jot nañu togg yóbbul leen te ñu nekk ci daare yu bare la ca ëpp ca daare ya nekk ca diggante sanc ba 1 ak sanc ba 2 alani min sinno kam wonduna aɗa wonde debbo ɗum mhm. kam sa mbiyata ko yaade defe wona mhm. eyyi eh, kadi ni joni cukum ko buri ɓuri mhm. e eh, dum do ɗo wa aɗa wawi wiide ka donka ko defirda ala barmi ala bol e dum do joni kam sino ka jogno debbo kam ma wi eh, ya, ma sori bol wala cooda naggam nangam e mbi adum yo def suga be kam nendo gildum fudde joni mhm. taw ko ala allah wonen kirta wonen daniel busab dok bitig ya sod busir busab ca dum do lacir ndor arata em do suudu em cer ndokam bekkitat sugan wonen wonen ni nyamata non tan lelot a weta ni dum lu wax moy ñom li len gënal mooy comme ni ngeen def ñi togg jox leen ndax ñun amuñu fi ay soxna amuñu fi ay jigéen te mënuñu di jàngal xale yi bëgg encore di leen toggal suñu sañoon daal mu ko ne ñiy togg di leen indil ndax doole noonu ñuy togg te xam ne daal leen jox lu set te yiw te baax. li gën moom euh, pour ñu xam ko dëgg dëgg dëgg dëgg fa faw fekk ña koy ña koy jëf wala ña koy def. ñu nekk ay nitu daara. Mhm. parce que boo nekkul nitu daara doo xam réalité daara nan lay doxee. daara mhm. lii mënu koo yor mhm. lii momentanément la mhm. maanaam bu fekkee ne eh, am am nañ dara lu ñu ciy def dañ ko war a comme ni ngeen ko defee rek togg ko rek daal di andi teg mais su ngeen ñu ko joxee rek problème lay doon parce que ñun duñ ko mën li jënd parce que mënoo mhm. xëy mhm. nga war a jàngale mhm. suba ba ngoon ñun fii suba ba ngoon da ngay da jàng di jàngale mënoo cee boole nekk di toggal ay toll ak téeméeri taali bi loolu mënul nekk comme ni ngeen ko defee nii li ngeen fi andi tey xeebuñu ko benn yoon bu fekkee ne mën ngeen ci dooli dara xëy na bu fekkee mënuñu ko doon na sax rek ndax jaamu yàlla moom sax moo ci am solo bu saxee rek ñun dinañ jàppale su fekkee ne benn bool bi sax bool ñoom ñëpp ku ñu kenn ku ne dañ ci am benn am yàlla da koy barkeel ndax ñun foofu lañ jaar dañ daan dajale bool yëpp pot yëpp sotti ko ci benn bool ñun ñëpp ñu wër bool bi ku ne tibb benn tibb rek daw toog fee di ja sa bopp loolu su ko defee rek incha allah yàlla day dimbali ñu fi day jëm kan bisu tey bi ñu ngi jéggalu sax askanu Ross Béthio yëpp ndax waroon nañu yëgle ni dinañu def lii waaye sëriñu daara yi sax waxuñu leen ko dafay fekk ni yéene jëf moo koy mottali te comme Saliou Ciss dañ ko jël en tant que président comité de sensibilisation ak euh, lutte contre le coronavirus maanaam xeex feebar bi bon bi ñëw ci réew mi ñu ñaan yàlla musal si ñëpp ak itam euh, yee askan bi ci wàllu nan la ñuy moytoo feebar bi yeewu suba rek am xalaat mu ni woo ma téléphone ni ma Alioune Mbaye ñun de dañu am yéene yi tey jii nu toggal daara yi li nga xamante ni moom mooy loo xam ne dinañ ko mën xéewloo xëy na loolu buñ ko defee sax dina permettre askan bi yëpp xam ni daara yi ci lañu bokk te war nañ leen mën a jàppale bi nu demee nu waxtaan ci yàlla dogal loolu sotti ñu xëy dem marché nduggi pour ni nan fexe ba tey jii bu fekkoonte ni sax dinañu jéem def dara ñu togg ceeb bu xonq ak bu weex nu ñëw jàppale ko daara yi ndax état bi dafa wax ni daara yi bu ñu yalwaani waaye nag joxagul daara dara loo xamante ni dina tax mu bañ a yalwaani maire bi it maire mi ngi jéem ci kéemtulaay kàttanam di def jënd na ay kik jàppale na comité bi lu toll ci téeméeri junni pour nu jënd ay eau de javel ak ay yeneen pour mën transporter bagage yi mën leen yóbbu fa mu war yegg waaye yooyu yëpp taxul ba tey daara gisagul wàllam ci mbir mi léegi nag am na ci benn jëmm joo xam ni yàlla sunu borom baaxee ka ku ñuy wax Lamine Sow dëkk fii ci dëkk bi ci sanc bi bi di magu ñoom Umar Sow ak doomu maire Wuray ak Mamadou Sow mu yëkkati woon ñaari saaku ceeb joxoon nu ko bi bi ñu waxee ni que bëgg nañu jàppale daara ñu ni nan tàmbali comme mënuñu séddale ñaari saaku ceeb yi ci sóor ceeb bi yàlla dogal na dépense bi sax dañ ko leboon bi nu dajeeg moom léegi Lamine Sow ni que juróom-ñetti junni la ñu def dépense pour togg bi gannaaw amoon nañu ceeb moom moo yëkkatiwaat fukki junni ni fay naa dépense boobu kon nu koy ñaanal te ko a baax moom Lamine Sow moom ci jëf ju baax jooju mu def di wax ni ñu mënul continuer ndax ñun xeyna na attanuñ ko waye comme départ la ben la nguur gi taxaw ni bu na la ko dem nga dem nga bu yàgg dama ni ku fees daal ok ana beneen bool ana beneen la